yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw Madina dafa fekk ña fa nekkoon te ci diine muy juif yi ñuy woor bisu ashura mu ne leen lu tax ngeen di ko woor ñu ne ko mooy bis bi nga xamee ne ci la yàlla xetle woon Muusa musal ko ci na ñu di ko woor mu ne ah nun day noo gën a yey ci Muusa daal di digal julli di ñu tàmbali di ko woor am menn at yonente bi salallahu alayhi wa sallam ginnaaw dafa bokk ci am njàngaleem mooy seeni jaamu yàlla ñu fexe ba mu wuteeg jaamu yàlla yi ahlul kitab ngir ñu wuute ak yahud ya nañ doon woore mu ne de su fekkee ne déwén fekk na ma fi bisub juróom-ñeenteel bi danaa ko woor boole ko ak fukkeel bi sunu borom tabaraka wa taala de dogal déwén fekku ko fa borom xam-xam yépp ñu ànd déggee ca ne kon lay sunna mooy woor ñaari ñaari fan yooyu yi muy boole bésub fukkeel bi bu juróom-ñeenteel bi ak bésub fukkeel bi bu dee jëf ja nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam bésub fukkeel ba la woor waaye bu la neexee nga ne juróom-ñeenteel ba itam da koo santaane kon ñaar yëpp li ñu daal di doon loo xam ne lu dagan la am na bésub tamxarit ndax bésu naqar la wala bésu mbégte du ci leen chariatul islam santaanewul néewul bége leen ko néewul def leen ci aw naqar amma chia yi nga xam ne dañoo jël bisub tamxarit ne bis bi ci leen reyoon xuseyn kon day nekk bisub naqar faw bu dikkee ñi naqarlu dem bay àgg ci di tuur sax seeni deret ne dañu solidarité ak xuseynu mi ñu ca tuuroon deretam radiallahu taala anhu xuseynu di imaam bu mag di sëtub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kii ku dib jullit war koo bëgg waaye du tax loolu ñu jël ko mu nekk ak feet ndax kat boo xoolee dangay gis ne chia yi la ca làqu bokkut ak li nga xam ne moom la ñu wane ci bitti Xuseyn euh, bàyyi ma ko gën te Ali ibnu Abi Talib dañoo tuur deretam lu ëpp ci chia yi boo leen laajoon ban bis lañ tuuroon deretam mënuñu la ko wax kon ittewoo ja ittewoo Xuseyn am na fuñ ko teg foo xam ne bokkul ak la tax rek mbirum diine ak ndax mi surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xasan ci boppam nga xam ne mooy magi xoseyn ci boppam joxuñu ko benn itte kon mbir mi meneen mbir la moo xam ne mu bokkul ak wàllu diine la xëy na jataay bi mayewu ko ngir ñu détaillé ko waaye lislaam daal ci gàttal loolee ñi cay def di ko naqarloo loola lislaam saxalu ko tey da ko tere te lépp loo xam ne xeetu yàq gu ca dugg la wala xeetu tuur deret wala xeetu biddaa lu mu ca mën a doon loolu lislaam di xaraamal rek lay doon ay doomu aadama mënu caa jële mukk tuyaaba du bis bi ñuy bégee ndax dafa am ci ahlu sunna ñenn ñoo xam ne bañ gisee ñële di ko naqarloo ñooñu ngir ñu naqaral ñii ñoom itam ñu ne dañ koy def kon bisu mbégte di ca togg ka lekk ka waye ka yu mel noonu loola itam dara wéru ci lañu cay nettali lépp ci ay yëf di wax ne nañ ko defee nii bu bis booba jotee ya ñuy jàng ak ya ñuy tareek formalité yu bari yi ñuy def ak yooyu yëpp li ci sax daal nga xam ne chariatu islam moo ko jàngale mooy koor kese kese dong amut leneen loolu na ko julli di xam ngir bëgg nit ñi gën koo xam bàyyi ko xel la sakka ni tere araamu waaye nag buñ ko tànnalee bis booba ñaaw dana dugg doonte nag lekk dagan na ndax dafa am ay kuréel ñetti kuréel encore yu séddalikoo ci Tamxarit benn kuréel bi mooy bi gën a tawassut ñoo cay def la sunna santaane te yem yàlla ci yàlla mooy ahlu sunna wal jamaa li ci sunna santaane mooy woor te noppal beneen kuréel bi dañoo ëppal ba def lu leen santu mooy chia ñoom dañoo jàpp ni ci li Ousseynou dee kon dañoo war a dee ñoom moo tax jouru tam xarit ku jàpp sa da ngay gis ñi yor a jaar di caw seen bopp sapeur yi dañuy ñëw pour ñoom diine la di dóor sa bopp di gor sa bopp ba am ñu ciy dee ñu ne lan moo tax ñu ne ci lu Ousseynou dee woon dañoo war a dee bu fekkee kay dañuy xool rek rek rek rek waroon nañu jig Ousseynou waaye caay caay moo ci dugg wa ma jaala aleykum fi diini yàlla ya santul kenn nga fes sa bopp waaye di xusi sa kawaat jigéen ñi takk seeni muuraay di cam sa bopp di tagg sa bopp ba di ñëw ba ay nit di ci dee ñu foog ni ku ci dee da ngaa martir loolu baaxul islam da ko xaram am ca ñoo xam ne dañ koy feetu mooy ñun waa Sénégal ak ñu mel ñun ñun moom jàpp nañ ñu tam xarit nañu dajale nag yi rey leen séddale leen tong-tong jigéen ñi dem nduggi togg cere ñu lekk ba suur xëy baalam dàq ñu loolu lañ jàppee tam xarit léegi nag pas-pas yiñ ci mooy di ci jiitu sunu mag ñi dañoo gëmoon ni tam reeru ñaareel la aaw muumewu ko moo tax ñu bëri ci ñoom jouru tam xarit bu tombé woon ak ayu aawa bi <laughs> dañ koy ay waay doo sax ba dawaate bu dëng. di kay dem xismatun diisee de boobu xisma moom dafa diisee. kon aawa yi daal ñoom problème ñu ne lan moo tax xam nga tamxarit mag ñi dañ daan wëññi weeru diine mooy weeru olof ñoom tamxarit lañ doon jàppee na ca la weer di jeexee ndax da doon tombee dugub ñor gerte ñor ñu jaay am xaalis su dugub ñoree gerte ñor ñu jaay am xaalis la nga def mooy takk soxna ca daan takk ñaareel ak ñetteel ak noonu comme na jëleen takk ñaareel nag ne moo war a tere moo war a aye waaw mais doo sax moom wala laaxiratu xeeru laka min al ulee léegi loola dem na ba ci même waa ji bu amee bu amul dañ ñaan séet bi génnal nga dem laaj aawo bu la joxul séyam dana yàqu moo tax day dugg ci kër yëpp gu mu dugg aawa yi daw tibb mbàtt dugub mbàtt ku nekk di ko dox buñ ko joxee mu indi loolu aadama waaye du diine loolu bokkut beneen bi am na ñoo xam ni dañoo jàpp ni bésu tamxarit bés la boo xam ni néew ya deewoon ci guddi gi yàlla da leen di jox seeni ruu ñu dellu si seen kër ut si reer ndax mën nañoo xiif te am ku ko xiif néew ya neewoon ñëpp dañuy ñëw guddi gi ngir reer si léegi nag bu ngeen reeree ba pare yax yi bu ko sànni def leen ko fa ñuy raxasoo ngeen bàyyi ko fa bool yi bu leen ko raxas ngeen teg ko dëpp su néew yi ñëwee lekk ah néew yi de bu fekkee bool bu set wecc des ay doom la lekk xam naa ne am nañ problème loola moo tax bi doo gis gars yi raxas bool dañaa eh, tey bu kenn raxas bool de am ñu ne boo raxasee bool fii ba déwén loo bay du nangu pas-pas yu garaaw la yoo xam ni boo ci topp benn par benn da naan ñii ñooy ñan fu sëriñ si ne woon am ci ñoo xam ne nee nañu loo ci ñaan mu nangu waaye balaa ngaa ñaan mu nangu da ngay jal boo jalee boo ñaanee mu nangu loolu ginnee lu ko sant rek léegi nga reer ba pare jël sa jal borom kër gi jiitu aaw bi topp ci ñaareel doom yi ni ñu magantee topp ci léegi nag ñu jël bool bi yëkkati ñaan sa soxla dëpp yëkkati waat ñaan soxla dëpp da nga gis mag mu ci jonkan ba daal dëpp bu demee maire bi ñëw billaahi noonu lañ koy toppaloo toppaloo dafa topp jàpp rek jaamu xërëm dëgg ngi nii boo ko boo koy seetluwaat da nga naan lii lii lii ban diine la ku nekk nag ñaan sa soxla da nga def baax naan ñaan leen nag ñu ñaan waaw ñaan leen de bu leen ko sàgganee suñu defee loolu ba pare raxasut ba fa si way nekk ñu ne nañ ko bàyyi ci digg ëtt bi mu fanaan su bët setee yax yépp day set ñu jël ndox moom mu wis ko ci kër gi seytaane du fa dugg mu dugg fu ñu dëkk fanaan ko ngay amatul dugg xanaa ngay foo dëkkul ngay jéem a dugg beneen bi bokk na ja aada bii dafa ñaaw ba pare bon diine bañ mooy sàcc alalu jàmm sàcc alalu jàmm loolu nag la ko la ci mag ñu woon mooy taalibe yi ñoom lañ daan bégal ñu ne guddi tamxarit kuy taalibe loo jël lew na la mag ñi noonu lañ ko daan doxalee moo tax bu delloo foofu amaan la dana nekk mu daga ndax maye la woon bi ñu ñëwee ba aada bi fomm xamatuñ ko ñi ko xamul boo jëlee seen yi sàcc la loolu mooy aada bi mais aadami moo nekkoon taalibe yi nekk ci àll ba di jàng di yelwaat di jàng di yelwaat bi su tam xarit nag nañ leen may nag soo leen mayee nag doo tëj ngunu yi doo tëj fi bëy yi nekk doo tëj fi xar yi nekk su ko defee taalibe yi ànd xel bu ñëwee jël benn ginaar benn bëy benn xar yóbbu bu demee ñu noo fekk loolu dagan na leen loolu moo indi woon dem ba yàgg nag mujj gi ñun ñu commencé cee dugal booy Dakar ak toje rek sàcc sàcc loolu moom bokk ci beneen bii diine na ko araamal mooy jigéen sol yére góor góor yor seen sol yëre jigéen ñuy taaje boon sabab bi wax nañ ni la indi taaje boon tamxarit wax naa leen mooy début at daara yëpp ci la ñuy dañuy invité parents d'élèves bi ñu ñëw ñi mokkal tari ñu koy def ci guddi reer yi bëccëgu reer yi lañ koy def ngir lan booy bi day tari di tari ba reer jot ñu reer mu continuer suba buy pare minal jinnati wan naaf ay jeexal ñu naa ah, kii kat léegi am kaang la am kaang la mooy wokku na alquran sëriñ daara yëpp bu dee dëpp àll yi dañ daan tane ne yi ñu mokkal nga indi juróom yi mokkal ma indi keneen indi keneen indi ñu boole leen ñu fiitoo bu ñu taree ñu fiit leen fiit mooy laaj leen ay aaya ñu àggale ko ñu ne ñii kat wattu nañu téere bi bu ñu mokkalee téere yi mag ña baaxoon ragal yàlla dañuy xaar képp ku mokkal boo majeure rek ñu may la jabar noonu lañ ko daan doxalee léegi nag loolu demoon na ba àgg ci ñu ne bu ñu taree ba àgg ci suuratu qamar la ñuy tàmbalee léegi su ñu taree ba benn saar ba mu jeex su saar bi jeexee sëriñ daara bi ne afa min hada alhadisi tajabuun wa tadxakuuna wala tabxuun wa antum saamidun ñenn ñi jooy ñuy baat boobu ñu doon wax nag taajabum léegi nag dem ba soppiku yenn taalibe yi mënu woon jàng nag nga xamante ni ca lañ doon jóg di jam ñu mu commencé wul lay rek wër ci kër yi loolu mooy cosaan bi indi lii dégg naa benn ustaas bu ko wax ci benn rajo mais xamul cosaan bi ma déggee moo ko laa daa seen bi juum nga wax na ci lu bari loo xam ne jarul parce que day mel ni di tontu ay nit mais alaakulaa lii moo indi cosaanu taajaboon parce que taalibe yoo ko daan def bu ñu ko daan def dañuy jàng alquran bu ñu waxee asmin hada hadis taajabun wax li ñu bëgg a wax boole ci ay abdou jàmbaar ñaari malaaka la moom ku leen ko wax abdou abdul jabbaar abdul jabbaar lañu ni mooy malakal mawt tur boobu wér saxo ñëw na ci saawi alal na malakal mawt mi ngi tudd abdul jabbaar lenn gaa naa ñaari malaaka la ñii ne wóor lay daanu ci sa buum xam naa moom lu muy def di daanu ci moom it na rey rek gis nga ko beneen bi bokk na ci julli fay faat biñ def Sénégal léegi sunnaan lañu loolu léegi musiba am na ci réew léegi ku nekk xewal dégg naa indi ne ko fi amee ci yéen yàqu julli fay faat fan la am ñaari rakk yuy julli la nga julli woon lépp yàlla baal na ko ma ne amut amut wéru dëgg dëgg ñaari rakk yoo xam ne boo ko jullee la nga fàtte woon ci julli la nga yàqoon lépp yàlla baal la ko bu amoon yonent bi wax ko law kaana xayran la sabaquuna ilayhi su doon dëgg saxaaba yi def ko mais fay faat amut la nga ameel bor ci julli fay ko mooy sa mbir lu ko mooy boo faatoo yàlla faat la kon boru julli da nga koy julli waaye julli ñaari rakka boo ko defee yàlla jéggal ñu yokk ci julli ba nag ay aqaayid yu bon a bon bokk na ci julli ñaari rakka benn rakka bi jàng faatee juróom-ñaar fukki xuru wa beneen bi faatee tamit juróom-ñaar fukki xuru wa juróom bu njëkk bi bi ci topp boo ko defee ba pare ñu sëlmal commencé jàng asbanallah wa ni'mal wakil jàng ñaan boobu nga ñu koy jaay fan yii foo romb ñu la dañuy ñaanu dafa baax nangam nangam ñépp jàng ko bokk na ci pas-pas yi ñu ci teg te diina islam ko junni ixlaas junni ixlaas xamuñ ko ci diina jigéen ñi góor ñu ku ne yor sa kurus lixlaas lixlaas lixlaas rek loolu yomb na du diine parce que du santaan dañoo gëm ni boo jàngee ñetti ixlaas day fekk wecc kaamil ñu ne boo ci jàngee junni nga am juróomi téeméeri kaamil loolu loolu loolu déedéet la la ci war def ko mooy waral point jàmm yàlla dem sa yoon dafa am loo xam ne coono la mairie paay bu nekk taalibe yi tamit dugal ci ndax ñoom it jënd seeni fooy rek bindal leen ci suuf rek tegal leen ci suuf rek léegi nga ne ko jaayee 10 francs man dama jaay billaay dama koo jaay jaay ba na ko yàlla toppee baax gis nga ko daan jege damay bind rek di teg di tag di tag ñu ne bu ñu am na ñoo xam wax am na ñu ne beneen aaya léegi boo lem première daw ko cere bi nga koy booleel soo lekk doo sàqami ndax bu ko sa bëñ laalee am problème billaahi da nga ciy gis ku fam xam nga daan ko nga nar ko ñu du mu dugg loolu ay nax la yoo xam ne bopp yi la ci doon réer loolu tamit wéru diine xamu ko beneen bi ci gën a garaaw nag mooy bu ñu jullee ba pare ñaan ñu ne téen xool jant bi Fatima lay fóotal yonent bi ki lay fóotal yonent bi su fóotalee yonent bi ay yëreem su sottee ndox mi asamaan si day bleu jant bi rafet ci la koy weer yooyu yëpp ay pas-pas la yoo xamante ni wax dëgg yàlla bokkul ci suñu diine bokkul ci lu ñu